asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di siyaare baax Abdoulaye Seck la tey defe naa la alarba euh, suma juumut ñaari fan moo def si màggal wala benn fan rek euh, daana jafe lool fii ci bu naan une semaine bu ko mosaan a def tumuranke ndox dafay saaroo lool ci bu Minaan tey jii nag réew mi moom wax dëgg yàlla mi ngi xel li donte nag ni muy xellee yéex na waaye mi ngi xel waaye lii moom musta am tabaaj baa nga ne fees dell lii nag ak sant yàlla la xaaral ma ñëwoon leen baaj bi waaw bassin bi mi ngi nii fees dell la def fii moom xam ne ndox mënut fee manqué waaw te wan bi mi ngi xel yi kon nag sant yàlla bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla changement moom am na moom ndox moom bu manqué it gëmmu mu manqué nem daan manqué moom ndax li gaa yi mën lépp pas-pas li mën lépp defal kon nag yàlla na yàlla may màggalu jàmm rek ñu amul ndox it ñëpp yàlla dimbali leen man am ndox waaye kay ñu ngi leen di sant bu baax jërëjëf